fois bu ñu toogee ci télé élection di ñëw dañuy gëmloo askan waa Sénégal ne ñun non non def nañu sondage opposition mooy am 30 pour cent 70 pour cent yi dem ci pouvoir. ah pouvoir bi nga xamante ne askanam mi ngi bëgg a lekk mënta lekk. pouvoir bi nga xam ne askanam mi ngi bëgg ndox amul ndox. pouvoir bi nga xam ne askanam mi ngi bëgg courant amul courant. pouvoir bi nga xam ne ay ndawam ñi ngi war a liggéey bëgg a liggéey amuñu liggéey. Mm. pouvoir bi nga xamante ni day jël am kumba bu am ndey ak kumba bu amul ndey. sànq sama frère wax na ko Simon kilifa ña ca kaso ba ki nga xam ne ñoo ànd ak ñoom nekk ci côté lu leen neex def pouvoir bi nga xamante ni dañuy jël ki nga xam ne mooy def ay faux billets defar ko lu ko neex génne ko jël ñi nga xamante ni ay citoyens yu am solo lañ ci seeni réew war dugg ci seen réew wala tabax seen réew mu jël leen lakk leen cant bi pouvoir boobu tey ñoom ñooy ñëw ne def nañu sondage askan waa Sénégal jox nañ leen 70 pour cent jox na opposition 30 pour cent kon nañu xoolaat wax ji bu ñu yàq askan waa Sénégal nañ lañ jox cër. Mhm. kon su may dellu si foofu. Mhm. ñun li ñu concerne mooy la grande coalition gëm sa bopp. Mhm. li ñu war a def dañ koo def. booy seet sànq sama frère bi wax na ko nee na 83 ci dossier yi nga xam ne moom la ñu war a euh, dugal 83 la ñu laajte. waaye yow bu ñu la laajee 83 nga dugal 90. kon ana manquement. te lii tax ñu ne la yow da ngaa mooy lan. mais madame nga baal ma foofu juumuloo tamit bu ñu la nee 55 da nga war. non xaar ma ñëw bu ëppee it baaxul. non non xaar ma ñëw xaar ma ñëw. Uh-huh. xam nga dañoo ne nañu defar suñuy liste mm-hmm. nañu dugal suñuy liste mm-hmm. xam nga tey lan la ñu waroon a mën a wax mm. mooy la grande coalition gëm sa bopp dañoo toog ba minuit te ñëwuñu ñu arrêté leen vingt deux heures trente neuf mi ngi nii moom lañu ñu déposé suñu ay liste mm. ak suñu mandataire monsieur Bamba Fall. Mm-hmm. bi ñu duggee ba déposer ba pare. Mm-hmm. bi Bamba Fall di génn li ñuy naan saay boo leen nekkee ensemble il faut ngeen di laajtante. Mm-hmm. ndax dafa am yenn piège yoo xam ne ñoom dañ ko coo dugalaat tëggaat ko ci biir élection yi ci biir liste yi. bi Bamba Fall laajte ñu dellu soit ne ko carrément nii lay demee ci proportionnel nii lay demee ci ci euh, ci majoritaire dafa dellu suwaat ci préfet. mais vous ne le saviez pas avant ça. si. maa ngi ñëw Charles may may ko may li may expliquer dama bëgg askan waa Sénégal déglu ma. li ngay dara leer. dafa leer nañ yow yaa nekk di nelaw fi mu ne sànq ba tey yaa ngi toxoñu moo tax nga nekk di nelaw. malal malal wax na la dëgg nag yaa ngi fi ëppali ak di toxoñu yow fi mu ne dangay nelaw may nañ ko mu naan ndax mu yeewu. non léegi nag. lu mel noonu bu fekkee ne yow déposé nga te tey mooy li ñuy wax ci affaire mandataire sànq ba tey ma ne tekk noppi. Mm-hmm. mais mandataire moom am sañ-sañ. delluwaat pour ñu xool ci biir listam hmm. loolu mandataire lañ ko may mayuñu ma ko man mayuñu ko kenn ku dul mandataire mais nga baal ma Ndeye Selbé foofu it melul nii nga xale euh, euh, bon di xale ku def examen. Mhm. joxe feuille génn dem ba mu neex ko dellu si ne professeur bi. del du benn. ma ma question elle est balaa ngay ñëw sa question. ma ma may bàyyi déglu ma man ma développé. oui parce que mënoo ma poser question te développé wu ma pare. d'accord ah, déglul. Uh-huh. jëlal sa temps nga déglu ma. Mm-hmm. d'accord merci beaucoup. kon bu fekkee ne loolu am na. Mm-hmm. Bamba Fall bu ñëwee duggaat. Mm-hmm. dem taxaw. mais nee préfet ñun am na loo xam ne joxaat ñu pour ñu ñëw xool ko. mais préfet war na xam ne Bamba moom mooy mandataire. parce que boo déposé may nañ la 48 heures yëngal bopp bi Serigne Mbacké da nga may déglu. boo déposé may nañ la 48 heures yoo xam ne ñoom dañ koy càmbar. bu ñu càmbaree ba pare mayaat nañu ñetti fan yi nga xamante ni dañ lay ñëw bu fekkee dafa am ay manquement ci sa liste. dañ la ko war a jox ne la nga defaraat ko ba mu baax bu fekkee ne am na ay euh, euh, photocopie carte d'identité légalisé sax yoo xam ne dañ ko tëb dañ la ko war a delloo nga dem photocopier légal nga dem légaliser waat ko indiwaat ko loolu la yoon wax yaa ngi signe de bi noonu la demee wala. loolu la yoon wax loolu la yoon wax. Uh-huh. kon dafa am loo xamante ni tey jii lañ ñu defoon rek ca deux mille dix neuf. <laughs> ñoom ñoo génnoon ne cinq ñooy dem ci parrainage. Bougane Gueye Dany ba mu dugalee parrainage am dañ ko ko tere même chose la ñëwaat tey jii defaat ko kon tey bu ñu xësee ba déposer liste yi bu fekkee ne am na ay manquement ci biir liste yi kon li yor préfet mooy ñu jël ko wootewaat nit ñi ñëw xool li nga xam ne mooy manquement yi ñu defaat ko mhm. loolu mooy yoon askan waa Sénégal lay waxal mais bu fekkee ne yow da nga nee lii kii mooy mandataire lii bu duggee war na ko gérer moom mu ñëwaat ne la may ma ma gérer lii defaraat lii nga ne ko non joxe nga ko ba pare moment bi nga xamante ni opposant yi ña nga ca toog ca ca derrière ña nga toog ca tàngoor ba di defar moment boobu la préfet choisir jël ñi nga xam ne ñoo nekk parti au pouvoir mhm. dugal leen ci saal bu climatisé ñu toog di defar seen i liste télé laay waxee mhm. ah oui oui les partis ont fait avec les l'argent des contribuables di merci beaucoup ah. kon dafa am loo xamante ni loo xamante ni li ñuy wax nii c'est tellement sérieux uh-huh. kon dafa am loo xamante ni ci réew mii ñu nekk réew mii ñu nekk dañu war a tëddee ki ko jiite ak ñeneen ña nga xam ne ñoo koy defaral ay service am dañoo war a tëddee ñaaxaan nga baal ma jàppal leen Bamba Fall ak expérience bi mu am ci élection tamit di juum monsieur le maire maa ngi lay nuyu au passage. non du question mais loolu jaaxalu leen tamit non non du mbirum juum. Ah, xam naa fi ngay waxee. Ah. mais du foofu. man de information yi ma jot. Mhm. di ma la wax je réitère ce que je dis te man ni damay sukkandiku fu leer 45 a nekkoon ci liste. waaw léegi ñu ne dañuy sukkandiku fu leer mooy li nga xam ne mi ngi nii. liste des titulaires incomplets. 45 hmm. au lieu de mais vous l'avez maa ngi ñëw léegi nag 45 au lieu hmm. yow te ñu ne la carrément li war a dugg lépp. Uh-huh. li war a dugg waxatuma sax 45 ak uh-huh. mais li war a dugg lépp muy euh, majoritaire ak proportionnel. Uh-huh. li ci war a dugg lépp muy yow ñu ñëw dugal la ci say dossier 90. mais même bu fekkee ne y a des manquements. mais war nañu woote. nga xamante ne mandataire bi am na sañ-sañ boobu ñoo dugg. mais li ñu bëgg a def xam nga mooy lan. Mm. mooy jaay doole. Mm. jaay doole mm-hmm. la ñu bëgg a def la grande coalition gëm sa bopp ah. te dafa am loo xamante ni laa te dafa am loo xamante ni laataa ñuy ñëw laataa ñuy ñëw dafa am loo xamante ni laataa ñuy ñëw ci mbirub élection yii mm. ci mbirub liste yii ku ne gis na li nga xamante ni moom la président Bougane Gueye Dany ak ñun ñi njabootam daj Mm-hmm. kon dafa am loo xamante ni lii ñu ñu bëgg a teg mm-hmm. lii nga xam ne moom lañ ñu bëgg a def mm-hmm. ba taxaw ne dañuy xàllal Ablaye Diouf Sarr euh, yoon bi dañuy yaatalal Ablaye Diouf Sarr yoon bi ñun dañoo ne ñun dañ koy xeex léegi moi moi moi je pose simplement une question à la